Sara kii di Zahra Iyane Thiam mi ngi koy amal lii di campagne am ca Sicap Liberté ndaw yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw daan nañu amal benn forum ngir daal di waxtaan ak askan wi ci projet yi nga xamante ni ak programme yi candidat boobu daal di teg ngir daal di jëmmal li nga xamante ni mooy Sicap Liberté moom nag mu ñëwoon daal di visiter stand yi nga xamante ni moo fa nekk ba ku ci nekk daal na koy expliquer euh, pàcc yi nga xamante ni ñoo nekk ci juróomi euh, programme yi nga xamante ni andi na ko euh, ci loolu nag ku ci nekk wax ka li nga xamante ni moo jëm ci mbir moom Nous avons vu que vous, vous palliez à ça avec la promotion et la culture de la pratique de l'entrepreneuriat. Donc euh, la mise en place d'un cadre de travail avec des outils et d'expertise appropriés, c'est-à-dire pousser les jeunes, les faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement s'asseoir sur les bureaux, les faire comprendre que euh, on peut nous-mêmes nous, nous auto-employer. Et vous, vous parlez à ça avec déjà le comme ministre des microfinances, les financements que vous avez faits, nous d'élargir un peu et voir toutes les couches, les faire comprendre qu'il n'y a pas que les bureaux. Donc aussi euh, le soutien à les établissements scolaires. Nous voyons que les franco-arabes, les pousser vers l'avant, les établissements. Nous voyons aussi que vous avez mis en place des, des bourses sociales, en fait, parce que tous les enfants ne sont pas, euh, les parents, en fait, ne sont pas bien habilités à soutenir les enfants jusqu'à surtout l'école, l'étude supérieure. Donc les bourses sociales et là ça pourra aider, ça l'accompagnement et l'éducation à la formation à travers l'octroi des bourses. Donc, asseoir le forum des associations. Comme tous les quartiers, nous avons des associations ici. Peut-être, ils ne sont pas connus. Mais vous, avec le forum, peut-être déjà, on peut euh, engendrer toutes les associations, les mettre dans un même club. Et que chacun sache ce que fait l'autre pour que si l'un a besoin de l'autre, qu'on aille dans le même sens et sur la même longueur d'onde. Nous des jeunes. et aussi c'est ce qui nous manque parce que la jeunesse il faut comme on dit en wolof ndaw dañ koy tàggat donc quand quand quand vous occupez pas les jeunes ils seront occupés à faire autre chose et c'est pourquoi aussi nous voyons aussi des jeunes qui des délinquants des jeunes qui vont dans d'autres sens c'est parce qu'ils sont pas préparés nous voyons aussi que vous avez créé une radio communautaire là ça pourra servir parce que il faut savoir là où taper parce que la jeunesse on sait que bon on est plus attaché à, à, à, à l'audio, au visuel, donc avec la création de la radio, je crois que vous avez une cible bien déterminée et vous allez vers cette cible. Il y a aussi la mise en place d'un programme dédié à la coopération décentralisée. Je crois que tout a été dit. Là, donc, nous vous souhaitons la bienvenue et nous disons que nous sommes tous derrière vous. Toute la CICAP. C'est un plaisir que nous vous accueillons ici dans notre stand euh, à gérer la gestion du cadre de vie, euh, qui est un axe très important dans votre programme euh, de candidature. Ici, nous allons définir une politique environnementale adaptée aux réalités de chaque quartier, la création et la valorisation des espaces verts dans toute la commune. Euh, ayant constaté un manque considérable de ces adits lieux, c'est pourquoi nous jeunes, on est très... Euh, on est très intéressés voilà, à, à ce point. La création et la la création et le développement des espaces et jardins communautaires, la promotion, et le modèle, euh, la promotion du modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire locale par la mise en place euh, de coopératives sectorielles, à savoir euh, des coopératives agricoles euh, par la vente de céréales, de céréales locales. Parce qu'ici, on constate un manque de moulins et consorts. L'organisation des réunions d'échange publique au niveau des quartiers autour du sujet de préoccupation de la population. Parce que nous constatons que les maires ne s'occupent pas des ressentis des populations. On vous nomme en tant que maire, après c'est fini. On, on, constate que à chaque fois, euh, après les élections, vous ne vous préoccupez plus de la population. C'est pourquoi nous sommes très, enchantés euh, de ces différents points. On veut faire dans le cadre de la gestion du cadre de vie, c'est aussi bien la gestion de l'environnement, comme vous l'avez dit, mais il y a la sécurité, l'aménagement, l'assainissement et la gestion des lieux de culte également. C'est un plaisir de partager avec vous ce thème qui porte sur la santé et la prise en charge des personnes âgées et vulnérables. Alors il faudrait d'abord savoir que la santé, c'est un indispensable et qu'il faudrait déjà donc s'assurer de la santé population pour pouvoir aspirer à un développement. D'abord par la mise en place de DEFAR, qui sera un centre euh, de désintoxication pour nos frères sicapois, qui euh, de plus en plus donc, euh, s'adonne à la consommation d'alcool et de drogue. Donc DEFAR sera un centre de formation et d'aide à la réinsertion sociale. Il y a aussi la mise en place euh, de l'assistance sociale ainsi que euh, donc les aides volontaires donc, qui permettront la prise en charge des personnes âgées dans les maisons, des personnes souffrant d'un handicap et des femmes enceintes. Alors déjà, euh, ce volontarisme-là permettra à nos frères de se former d'abord donc au niveau euh, des métiers de la santé. Ils vont leur permettre, ça va leur permettre aussi donc de pouvoir intégrer les postes donc euh, après la réhabilitation et la redynamisation des, des plateaux sanitaires. Alors déjà, donc naturellement, qui est un point très significatif de votre euh, programme, n'est-ce pas Alors je vous souhaite une bonne continuation et une réussite totale pour votre entreprise. Bonjour Madame la Ministre et bienvenue chez vous. Bon, moi, vous allez me permettre de m'exprimer en Wolof. Voilà, ñun ñoo yore lépp loo xamante ni dafa dem ci culture sport ak yaakaar naa volet boobu noonu bon bu ñu koy wax tàmbali nga ko ba pare euh, par rapport ak éclairage yu terrain beeg dajaloo bi nga xamante ni ñi dajale nga ko ci njabootu sport ak euh, culture bi euh, voilà programme bi mi ngi nii ñëpp xam nañ ne stade Demba Diop depuis bi mu tëjee yàgg na te stade Demba Diop bokkoon na ci loo xamante ne ni buñ ko tuddee rek xel yëpp dinañ dem ci commune Sicap Liberté te bi mu tëjee ak léegi yàgg na ñu gis ne ci sa programme yaa ngi feddali sa kóllëre ak euh, population Sicap Liberté yi pour li nga xamante ne ni lu koy mettre en place la kooku yaakaar naa ne ñëpp dinañ ci euh, kontaan. beneen bi mooy aménagement wu terrain yi ak euh, fi nga xamante ne nii ñëpp dañ fay dajaloo pour tàggat yaram wala pour loo xamante ne nii luy jëm ci volet culture la lu ñuy lu ñuy wax. yaakaar naa loolu lu am solo la parce que comme li ñuy wax un esprit sain dans un dans un corps sain. mooy si wàllu kii yi nañu wax maanaam sa programme ndax man dama gis comme bi dama lire sa programme dama gis si point loisir yi ak culture ak sport bi nga boole si say prérogative affaire stade Demba Diop bi ma doon laaj ndax stade Demba Diop si zone de compétence u commune Sicap Liberté la bokk beneen bi tamit culture culture ak sport yi gisuma ñu mentionné si ASC yi ak école de foot yi je ne pas question yooyu daal laa doon posé ñaar yooyu. Euh, comme ni nga ko waxee ay partenaires lañ parce que yàgg nañu ànd jëflante euh, association bi aussi yàgg ngeen euh, yëngatu di ñu solliciter ñu leen di jàppale. maintenant dans le cadre global laay jël li nga wax parce que li ma ciy jàpp mooy li leen yitteel du luñ leen jox. mais loo xam ne dañ koy teg ay outils ay mécanismes yoo xam ne loolu moo leen mën a jàppale ci li ngeen nekk di yëngatu maanaam bu fekkee ne yéen ay sportif ngeen collectivité territoriale bi muy mairie bi mën a bokk ci loo xam ne dina leen permettre ngeen gën a xarañ pour mën a gën a dem feneen parce que tey ñëpp xam nañ ne sport industrie la ñëpp xaalis bi ci moon bi ay footballeur lañ te li tax ñu am loolu c'est le professionnalisme maanaam dañ leen di wutal ay centre de métier ay centre de renforcement école de football yi bëri na Sicap soo demee Liberté 6 am na école de football nga dem Liberté 4 am na Liberté de am na fii am na li ci des mooy ay centre de renforcement mairie bi mën a taxaw au-delà des subventions yi nga xam ne ñi ngi koy jox ASC ñu tegal leen également jumtuwaay yoo xam ne dinañ mën a def sport mais surtout dinañ mën a def étude parce que aussi carrière dafa am fu mu yem mais boo demee ba sa carrière yem fenn fi lan mooy doon la suite suite boobu li la koy permettre mooy maanaam même soo amee ay prédisposition si sport bi mais nga mën a xarañ ci yeneen mbir yi te loolu li koy maye mooy sport étude donc ci fànn yooyu la suñu action basé wu beneen bi mooy wax nga ko est-ce que stade Demba Diop dafa bokk dañ ko bind ci suñu programme ngay laaj ndax suñu compétence la li ñu bind ci programme bi mooy te mooy cinquième axe bi parce que juróomi axe la ñu am ñun nee nañ ci juróomi aspect rek bu ñu ci do jëflanteek waa SICAP problème waa SICAP yëpp mën na retrouver wu ci biir du ma ñëw ci ñeenti axe yi wax nañ ko ba pare <coughs> mais ci cinquième axe bi nga xam ne mooy culture sport et loisir dañuy wax faire du stade Demba Diop un fleuron sportif un lieu de loisir couru par toute la ville en partenariat avec la fédération sénégalaise de football partenariat boobu ñu indi mooy wane ne stade Demba Diop mairie bi moomu ko stade Demba fédération sénégalaise de football lañ ko rétrocédé ñoo ñoo ko yor waaye te li tax mu tëju nii c'est parce que dañ koy réhabiliter te budget bi ko war a réhabiliter pare na ba pare par contre li nga xam ne kenn mënu ko dindi mooy stade bi liberté la nekk population yi buñ fiy football temps ñu fiy football wala ñi fiy def làmb wala ñi fiy def leneen ñun ñoo doon jànkonte difficulté yi am kon lépp luy dem lu ñuy def ci stade bi te stade bi nekk fii suñu biir foog ñu xool lan la foog ñu xool nan lay mën a nekkee en harmonie ak population yi fi dëkk mais foog ñu xool également centre yi ñu bëgg te amagul naka la ndaw yi di mën a bokkee ci dem ci stade bi Marius Ndiaye mi ngi ci biir leneen ak leneen mi ngi ci biir donc niñ ko tëjee nii tey amul benn ASC bu bëgg jouer mën jouer fii biir Sicap da ngeen di dem parcelle wala ngeen dem géejawaay te stade bi nekk fii à deux pas c'est vrai stade bi dina créer ay difficultés ndax bu ñu génnee gars yi bu ñu meree seen match bu ñu génnee oto yëpp la ñuy toj leneen ak leneen mais loolu yëpp nag lañ ne foog mairie bi taxaw ci xool ni muy concilier xale yi mën ko utiliser mais également mu mën a bokk ci luy joxe koom ci biir commune mais comme stade bi ñun moomuñu ko fédération moo ko yor foog ñu dugal ko ci ñu programme mairie bi taxaw ci lool loolu du yem ci sport rek parce que jàpp naa ne même entreprise yi ne fii am na ay structure bugguma leen tudd mais war nañu entreprise bu nekk biir commune Sicap donte da ngay jël ay nit yu jóge feneen di liggéey mu am quota boo xam ne dañ koy jël pour ndaw yi dëkk Sicap ndax travaux ndax travaux mënul romb doomu Sicap yi nekk fi te duñ ci nekk kii ci li Sicap la bokk mi ngi liggéey fii wala ab boutique ñëw fi nekk magasin bu mag nga ñëw dugg fekk fa ñaar fukki employé te amul kenn ku dëkk Sicap dam ne loolu dina fi jeex bés bu ma nekkee maire kuréel gu fi taxaw dina jël xale yi boole leen si mais du ñu leen imposer rek ñu ñëw rek jël xale yi li leen li ñuy njëkk a def mooy suñu ndaw yi ñu tàggat leen wala ñu jàppale leen ci ñu tàggat ñu am métier xale dafay am métier te li ma gis nii dama ko rafet xam nga ñu ñëw ne la kaay yow candidat nga dañu lay defal forum ndax bi ñuy commencé campagne bi dañu ubbi li ñuy wax programme volontaire de Zahra Iyane programme volontaire boobu mooy koo xam ne dafa ne yow li nga def doy na ma li nga wax doy na ma damay bokk ci liy defar sa campagne kon tey bu fekkee ne volontaires yi ñoo mën a ñëwal Liberté 1 nga xool ñun ñu ñuy participer ci sa campagne mu am volontaire bu ne jël benn thématique gis ngeen stand yi ñu proposé ne wàllu euh, éducation formation employabilité des jeunes candidat bi yow lii nga ci wax ci ponk yi ñu liir ko ba pare ne liñ ci wax lii ak lii lañu indil comme solution ci jafe-jafe yi ñuy am te waxuñu dañuy yem rek ci comprendre sa programme mais dañ fiy toog keneen ku ñëw ñu jéem la convaincre mais loolu ça veut dire que le programme répond aux préoccupations des jeunes te lii moo war a nekk campagne nit ñi comprendre lan nga leen bëgg defal ba pare ñu approprier wu kon xam ngeen lan moo si des parce que man li may wut wutuma ko pour man de li may wut dama koy wut pour ñun donc affaire bi warul nekk kan lay tànn parce que euh, c'est une question affective warul nekk question affective Abdoulahad wax na ma ko wax na ko léegi le 29 juin 2014 dama ñëwoon nekk fii candidat biir Sicap bi ma ñëwee amul kër bu ma duggul biir Sicap ñu ne ma yow fii nga dëkk sa woy bi neex na trop yaa fi dàq campagne mais duñ la voté c'est ce que les populations m'avaient dit à l'époque parce que gisuñu suñu bopp ci li ngay def yéguñu ne yaa ngi suñu wet bi ma jugee ci loolu 2014 boobu ba jëm jamono ji ma toll maa ngi dox ci soxlay Sicap xam lan lañu soxla xam nan lañ bëgg seet naka lañ koy mën a faje mais yemul foofu mais yemul foofu parce que biñ ci toppee di liggéey di liggéey suñu borom dogal na mu may ma ci diggu yoon bi moment boo xam ne war naa wala nit ñi mën nañu seede ndax kii li muy wax ne bés buñ ko joxee leneen lu jëm ci commune bi dina ci taxaw foog naa ñetti at a ngi nii maa ngi ci gouvernement di def liggéey boo xam ne dañ koy def pour Sénégal yëpp mais liggéey boobu ñuy def pour Sénégal yëpp gis nañ ne am na aussi njeexital ci biir jeune ci biir jigéen ñi ci biir population yi Sicap taxawaay boobu laa ne am na ay compétences yoo xam ne état central bi koy def dafa ne man pour li ma bëgg mu gën a jege askan bi dama koy jaarale ci ay mairie kon su nit ñi bëggee ci wàllu jàngu tànk yi école primaire yi nit ñi ci seen localité yi dama koy dugal mu nekk compétence transférée santé environnement ak yeneen ak yeneen mais loolu ñi bokk dëkk ci gox bi ñooy tab kenn ku leen doy ci seen biir mu jiite mbir moom kon tey li ñu bëgg def yépp ci wàllu boobu ci mairie bi lay nekk kon day jaadu su fekkee ne engagement bi may wax lu dëgg la ci man te mooy man fii laa dëkk Liberté de boo dammee koñ da ngay gis sama kër mënuma fi réer kenn te ñun ñëpp xamante nañ donc ça veut dire que fii ma dëkk nekk ak yéen mënuma fi def lu leen réer wala munuma fi sañuma ma fay def man boog xaw ma keneen mais man sañu ma fay def loo xam ne dama koy wax rek te duma ko duma ko réaliser parce que ñoo bokkandoo dëkk te ñu ci bëri aussi boo leen gisul ñu judd màgg sa kanam euh, quand même euh, xamante ngeen yéen a bokkoon fréquentation. est-ce que loolu c'est pas très surtout que Sénégal centre de désertification yi est-ce que duñu trois xaw ma deux maanaam bi nekk Thiaroye ak bu nekk Thiès est que possible na mu mu nekk si Sicap dernière question bi mooy que cumul de fonction bi est que di nga mën gérer suñu commune di gérer wàllu ministère bi. d'accord ah, <laughs> euh, man débat laa bëgg. parce que lii mooy wane ne li ñuy def yitteel na leen mm-hmm. te bëgg ngeen def un choix man li ma jàpp ci suñu daje bi tey mooy que ne nit ñi dañu bëgg balaa ñuy tànn ñu xam li ñuy tànn lan la loolu laa jàpp ci mm-hmm. waxtaan le centre defar c'est un de désintoxication de formation et d'appui à la réinsertion parce que li ñu gëm mooy kenn ku nekk dafa war a am chance su contribuer ci liy tabax koomam wala quartier am c'est pas osé ndax commune loolu laa doon wax ci ressources yi c'est loin d'être osé te yàlla nañu yàlla may ba nga xam ne bu ñu nekkee maire balaa mandature bi di jeex ñu teg centre boobu parce que ce sera sur plusieurs étapes et li ñu wax wax nañ ko la coopération décentralisée day nekk atu majeur ci li ñu bëgg def ndax opportunité ressources yi day jóge fu bëri notamment la ville donc c'est pas osé et c'est un point boo xam ne bëgg naa ñu téyante ko nii parce que euh, loolu lu ma ñor la te c'est pas maintenant que laa ko commencé di wax projet bi dafa pare ba pare li ci des mooy wut financement su fekkee ne yore nga exécutif local boo xam ne tu es habilité à parler au nom des populations su boobaa mën nga sol sa daal dem seet naka lañ la ciy dimbalee pour nga teg sa centre mais c'est un projet qui est déjà prêt et même médecin yi nga xam ne ñoo fa war a nekk choisir nañ leen parce que ñoom ñoo ñu dimbale ba ñu mën a bind projet boobu beneen bi ci des mooy le cumul de fonction kooku sama mbiru bopp la man mi nga xam ne maa dem kenn sexaluma suukar depuis 2014 ma taxaw ne dama bëgg nekk maire le jour où je serai maire ce n'est pas pour déléguer la gestion de la commune man ci sama wàllu bopp maay gérer mairie bi parce que population yi man lañu fal xam nga mode de scrutin bi dafa changé avant dañ doon fal ay conseillers après conseillers daje seen biir fal maire mais population yi dañ ko yàgg décrier tout le temps dañ doon wax kiy jiite liste bi d'habitude moom lañ doon jàpp ne day nekk maire mais da ngay gis liste am ku làqatu ci biir ñu xëy rek ñu fël ne koo koy maire bi loolu léegi dañ ko changé l'élection du maire est un suffrage direct maanaam nii ngeen di falee nii di ngeen fal liste conseillers de parce que fii Sicap on a 66 conseillers ñooy toog ci mairie bi 66 conseillers yëpp ñu ngi leen jël diggante liberté 1 ba liberté 6 extension ak Baraka mais ki jiite tête de majoritaire bi suñu liste Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté man maa jiite tête de liste majoritaire bi loolu la code électoral bi wax ne ki jiitu bu liste bi gagné kooku mooy doon maire kon yéen xam ngeen kan mooy doon seen maire. maintenant nag weg naa waa Sicap weg boo xam ne duñ ma fal ba pare ma naan damay euh, délégué euh, gestion commune bi loolu mënul nekk maintenant cumul de fonction bi loolu yàlla rek moo ci xam dara. pour le moment je suis ministre est-ce que demain je serai ministre yàlla rek a xam mais par contre ce que je peux dire c'est que même si je suis ministre commune bi maak ngi yéen ba engagement yi ma wax jàmm way waaye fi nga juddoo fa keneen mënu la ko gën a xam way waaye fi nga juddoo màggee fa suxali ko moo la soxal du ndam way waaye fi nga juddoo màggee fa keneen mënu la ko gën du ndam liberté 1 ba 6 seen doom a ngeen ko fal tabal ko diis yokku doole bi Zahra Iyane Thiam Zahra Iyane Thiam Liberté 1 a ngi ba ngeen ko fal tabal bi sax na leen indil dara IPP 1 ba 6 seen ndaw ma ngi na ngeen ko fal tapal